woo moom yàlla la woon moom di aji njëkk ne njëkk ñëpp nag ba fi dara ñëwut yàlla rek a fi newoon de te yàlla moom amut ak tàmbaliku yam asali yi la naka jàkk moo fi nekk mës a dañ wala axiru moom di aji mujj ne yàlla ay mujj yëpp yëpp fi jeexee yàlla rek a fi def def loo xam ne amul dayore ak xamam ak ñàkk mësu ko jiitu de ay xalam ak ñàkk du ko mujj bi mukk rek wute kudul moom kudul moom soo am na jamono yu maamu doon li ñuy séntu jamono yoo xam ne dana ñàkk lu mooy yàlla rek wa zaahiru yàlla mooy aji feeñ ci kenn dina ci tegtal moo gën a feeñ sax tegtali yàlla feeñ ndax dara nekkul ci kawam sàng ko dañu sin maxa kon baatinu moom a aji nëbbu moo feeñ moo nëbbu ndax lu dul moom nekku fa yooyu laa taxal wéet yàlla wéet nga xam ne moom la bëgg yàlla yëpp di wut buñ xamee melaw rek daal di xam ko yàlla rek alim naa ji xam la moom bi ci leen ci lépp lëf yàlla xam na lépp lëf na moo njëkk moo mujj moo feeñ moo nëbbu te laay la ñu gis te jumla yëpp mu mubtada bi maarifa xabar bi maarifa maa fi mu loolu ak lay njëriñ la huwa maarifa la lawalu maarifa la suñ ci xaatam yëpp maarifa lañ bu mooy lawal wax na ne kenn lawal mooy moom rek laaxir moom zaahir moom baatin moom moom fadduwut boo yow yaa faddu rek tos kare bon